c'est la fête de la jeunesse euh, ndax fii lañ tolloon bi ñuy waajal def coupe du maire ñu indi woon matériel bi présenté woon ko euh, la zone bi nga xamante ne mooy suñu partenaire di ñu organiser la coupe du maire parce que tamit zone dafa nekk un démembrement de l'ONCAV nekk un démembrement de la fédération sénégalaise de football kon lépp luy football ci commune bi zone moo ko moom kon su commune buggee organiser coupe du maire dafay jox zone mu organiser ko parce que moom moo am compétence moo tax bi ñu leen présent bi ñu toogoon ñuy démarrer nawetaan yi joxoon nañ ASC bu nekk jeu de mayo ñu nekkoon vingt cinq ASC 23 ASC ASC bu nekk joxoon nañ ko jeu de maillot ak bal pour mu mën a démarrer championnat am bi ñëwee nag ba ci final bi ñu ñëw jël matériel bi jébbal ko le président de la zone Pape Diouf muy trophée bii ngeen gis nga xam ne le vainqueur de la zone moo koy gagné malheureusement nag sama ñaari équipe bokkuñu ci muy Boof Mbalem ak Fandan bokkuñu ci waaye le maire dina ko remporter euh, ñun dañu ne dañuy def sport sans violence parce que violence lu mu am rek euh, sport bi dootul amati njëriñ ndax sport rôle am mooy fédérer boole nit ñi ñu xamante xol yi ànd moo tax ñu ne ASC bi nga xamante ne moo gën a fair play ci tournoi bi moom lañ jagleel trophée bi donc je pense que euh, on une commission euh, boo xamante ne très fair play moom tamit pour mun a choisir l' équipe fair play ñu ne le maire gardien di tournoi moom dana jël trophée bi ñu ne tamit foo waxee maire gardien nga wax maire joueur le maire joueur di tournoi trophée ma ngi nii mais comme dañoo bëgg commune bi am ay Sadio Mané ak ay Nicolas Jackson ñu ne la meilleur buteur nañ ko jox trophée bii léegi euh, football tamit récompense dafay am médaille ASC bi nga xamante ne moo jël coupe bi dafay ànd médaille door ak enveloppe équipe bi nga xamante namit moom moo finaliste euh, ñàkk match bi euh, newul ne daal de démérité mais c'est la loi du dana am médaille d'argent ak ballon ak enveloppe euh, les ASC nag yi nga xamante ne ñoom ñooy jouer finale bi dañ leen defal ay blouson bu ànd ak logo mairie Thiaré Ndialgui ay blouson yi nga xam ne moom la ñuy sol tey ak mayo yoo xam ne dafa am logo bi nga xam ne moom la ñuy footballer tey waaye tamit zone bi ci boppam maire nee na euh, comme ñoom ñoo organiser su joueur yi rafetee waa zone dañoo war a rafet maire ne na ut ay blouson jox ko waa zone pour ñoom tamit ñu mën a bokk ci fête bi mais fête bi vingt vingt trois ASC ñoo nekk ci commune bi mais ñaata ASC ñoo participer vingt ñoo participer ASC yi participer nag dañoo am diplôme de participation moo nekk bii waaw moo nekk bii waaw donc defe naa ASC Tofaay moo nekk nii waaye ASC yëpp a ci ko am donc ñu ngi ñaan les président de zone wala seen délégué ñu ñëw pour mun a récupérer seen matériel ci fête bi bii nii c'est des diplômes de reconnaissance ñu jagleel ko ñaar mooy la zone euh, la commune de Thiaré Ndialgui le conseil municipal très reconnaissante moo leen décernel bii nii ko tamit la CRA de Fatick parce que championnat bi gis nañ bam dooree ba léegi arbitre yi fayuñu leen donc nu sommes très reconnaissants bu leen neexoon ngeen ne amuñu paas amuñu saabu bu ñu footee suñu maillot ndax fayuñu mais ñëw ngeen bokk ci feet bi moo tax ñu jox leen reconnaissance bi te it match yi balaa nge di dem arbitre ji la zone dina compter xaalis bi ñu leen yoreel yëpp ñu jox leen ko au franc près ñëpp ay jot seen xaalis tous les arbitres te arbitres yooyu nag ñu utal leen peeru drapeau ak sifle bu ànd ak chrono ak ay mayo mais tamit ñu utale tableau remplaçant jox ko euh, pour la zone ñuy mën seen match zone ak seen match championnat ak seen match Euh, coupe du maire ñu koy mën di utiliser donc lii les arbitres tamit am nañ aussi ay médailles médaille d'or parce que ñoom tamit ci fête bi lañ bokk donc ñu ngi sant le conseil municipal bi nga xam te ñoom tamit dans l'organisation desuñ ginnaaw di sant suñuy partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale ci matériel bi pour que fête bi mun a neex waaye tamit di sant les organisateurs ñi nga xam ne bokkuñu conseil municipal bokkuñu zone mais sport neex leen commune bi neex leen ñu bàyyi seen lépp ñëw organiser ba mu rafet. di sant aussi la presse parce que la presse lépp lu feeñ ñoom la surtout Mindis TV bi nga xamante ne c'est le partenaire officiel de la commune muy politique muy sport muy développement ils sont toujours présents à l'appel Euh, di sant di gërëm tamit les populations de Thiaré Ndialgui xarit yeeg am di jàmm yeeg les agents de sécurité tout le monde.